kon waroo jiitu sa yaay ci bool bi ñun àq yooyu jur fokk mu topp ñu mille quatre cent cinquante cinq fois parce que ku yaakaar ne def nga sax ko li nga def du dara wuy jur xaaj ma si lakkan bi mas na koo wax mu ne dafa am ko ñëw ci genn góor ne ko looloo tax ma di ko tudd foofu nag gis nga tey mu ngi nii toog maa ngi koy tudd di ko téye mu ne dafa am genn góor gu ñëw ci benn sëriñ benn waa ji ñëw ci benn sëriñ ne ko damaa bëgg a yegg ci yàlla mu ne ko jaaral fa nga jógee woon nga ko waxee bëgg a ci yàlla mu ne ko jaaral fa nga jógee woon ak kay tontu bu gaaw damaa bëgg a yegg ci yàlla mu ne ko jaaral fa nga jóge woon mooy ndey ak baay boo jaaree ci ñoom nag yegg ci yàlla ci yàlla nga jóge jaar ci ñoom ñëw bëgg delluwaat ci yàlla jaaraatal ci ñoom rek léegi nga yegg ci yàlla Babacar mi nga yaakaar ne yeggut yàlla li bàyyi muy wax moom ci moom nii bu leen ko xeeb ma fa tabaarakallaahu yegg na ci yàlla bu yàgg. ñoo la woon déedéet tere naa ko koy de moom kañ tere rek tere rek tere naa ko kii de tere bul wéy ah naa ko sa morom moo tax démocratie démocratie loolu rek la waaye du dara yow ñoo far yàlla def wayjur du morom ma jeexale ko ci yéen ñiy jàng déglu leen ma bu baax képp kuy jàng ekool déglu ma ci góor ak ci jigéen dàqa jàng gën a la neex xel ba boo toogee déglu lu meetar bi wax wala professeur bi nga mémoriser ko bu bind jotee nga bind ko bu wax jotee nga wax ko xam nga foofu la xel neex yem neex xel mu neex foofu la yem loolu yépp bu àndul ak nga ñëw ci kër gi wàcc comme li ma doon wax léegi wàcc boo wàccee xam nga loo war a njëkk a def tegal sa sàkk fële songal sa yaay boo dee ku jigéen songal sa yaay yaay ana bool yi mu ngi ci wàññi songal bool yi raxasal yépp dëpp nàpp yépp fóotal baleel kër gi bu menaas menaasal sa yoon bu mu nekk ci mbindaan mi nekkal sa mbindaanu ndey d'abord sa yoon bu mu nekk ci mbindaan mi ndax mbindaan mi sa bàyyee koy fay wala sa ndey yow fayee goo mbindaan kon nekkal sa mbindaanu ndey fóotal napp yi baleel menaasal fobeereel defaral ba mu jekk nga ne ko yaay noppi naa mu ne la doom yal na yàlla barkeel nga dem yootu say kaye commencé bi jàng loo jàng mu mokk soo dëkkee ci loolu boo amoon befem befem kot nga am ko yàlla dogal nga génne école foo déposé ñépp lay sopp do sa dossier la ñuy njëkk a jël gis nga boo melut nii dàqal la jàng malaaka xam nga jàng moom mu ngi yem ci malaaka moo tax ñu lancé défi yàlla ne ko ñoo mel nu kenn melut yàlla ne leen juum ngeen di inni alamu ma la taalamun di xam naa lu ngeen xamul di ngeen ne yéen mel nu kenn melut wa allamal aadama asmaa kullaha summa aradahum ala almalaikati fa qaala anbiuni bi asmaai haulaai in kuntum saadiqin qaalu laa ilma lana ma allamtana innaka anta al alimu al hakim qaala yaa aadamu anbi'uhum bi asmaa'ihim <laughs> wax baa ngoog fa lamma anba'ahum bi asmaa'ihim qaala alam aqul lakum alam aqul lakum inni a'lamu ghayba samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumuna yàllaa far bu yàlla far ak ñun nag waaye ñun nañ far ak ñi ñu war a faral te ñi war a faral ndey ak bàyyi ci jiitu gis nga boo nekkee nii loo laal mu sotti loo dugg mu sotti loo yootu jot ko gis nga boo ko melul amal licence doctorat master 1 master 2 waaye meloo nii gis nga foo déposé boo yegg si ñu ne la démb lañ ko lëg ci amoo barke ndey moo tax amoo ngërëma ndey diplôme bu amul ngërëma ndey foo déposé danañ tànn yëpp bàyyi fa sa bos ngay xëy di wër ba jant bi so sëriñ bu ne nga ne ko ñaanal ma man fu ma déposé duñ ko jël fa nga waroon na ñaan loo nga rate delluwaatal foofu soo dee góor xam nga nooy def boo tegee sa saak ñëwal ci paa bi paa loo bëggoon dama sangal ma xar mi demal ma marché defal ma ni defal ma lii soo ca toppee def li bi bëgg boo légee loo sóobu yàlla def ci barke foo loo yó- loo laal rek mu nooy parce que da nga am ngërëmal sa bàyyi ba noppi soo ko deful nag yàlla moom boo liggéeyalul yàlla li wolof di wax ku demul àllarba yi firawn àllarba yi Muusa dem dibeeru firawn xam nga yow jigéen boo deful lii xam nga nooy def yàlla dina la natt ñaq wi nga waroon ñaqal sa yaay ci waañ wi ak fóot nàpp yi raxas bool yi te defoo ko yàlla daf lay natt di nga xëy sangu walla gontu sangu doo am sax crème boo tocc mi ko ndeysaan sa crème yaay ngay jël moom ngay tocc mi ko gàddu saat bu deful dara dammiti seetoo ci ne ak crayon pastel ak benn ment ak lippolève ak benn mouchoir Kleenex buy waaj a jeex te jeexagul bu bees sax doo ko am mooy nekk ci saat bi nga doxee fii fan la yëmbal ba Malika benn baraag ngay doxee ba Malika tocc mi sa yeel ba mu leer naññ nag ngay dox di geesoo boo reppee ba sii di maxtaar konte ne la aystu yow ah na nga maa ngi fi rek jëlal sama numéro yaay joxe sa numéro te kenn du la ko laaj parce que amoo barke te la nga waroon a tuur sa ñaq ci kër gi boo ko tuur di ko tuur ci mbedd mi par la force te nga tuur ko ci kër gi moo ko gën yow mii xale bu góor xam nga fooy mujj yow bàyyi yónni na la fii yëmbal bi bi ci topp ban na caaro yi xam nga di jegeen eh, non pas non pas su clando quoi pas bañ na ku ko ñàkkee teggin mu yëkkati cinq cent francs jox la ne la passe ci aller retour xëy na sax xol bu bon dana tax la la bàyyi doon doxloo du ànd ndax sa xol nanguwul nga doxee ko ba ñëw pa fekkuma ko fa quoi bàyyi mor daa génn ñeneen daa génn doo ko ko wax sax ak langage bu bu rafet waaye yàlla dina la natt yow it fen bi ci nga nooy def da ngay toog ba tàkkusaan nga sol kilot sol ay baa ma dem futi ngi ci ñëw quoi waroon na daw dem caaro yi doxale sa bàyyi yónnante defoo ko di nga wër terrain bi soixante-dix mille fois te doo ca am ngërmaane kenn dëgg la wala du dëgg lii mooy dëgg Ablaye Makhtar Diop nga baal ma boobu moo nekkoon ministre de la jeunesse et des sports mu dem gàmmo Njaasaan waaw mu dem gàmmo Njaasaan ñuy présenté ñi di ko présenté maam bu Kunta bi gaañu bu baax ba te niru woon El Hadj Abdou ñu ne ko kii mooy yore ndaw yi mooy ministre de la jeunesse et des sports mu ne ko kon ne war ngaa wax ak ndaw ñi man de fii de li ma fi gis ndaw ñëpp bu ngoonee ñuy daw ni sàcc te kenn dàqu wax ci man de fii ci Njaasaan bu ngoonee ñuy daw ni sàcc te kenn dàqu leen seen toolu baay yëpp booy na wax ci maam bu lii la ko wax keroog boobu moo nekk ministre de la jeunesse et des sports Ablaye Makhtar Diop bii tey nekk vice président de l' assemblée nationale sama wëllëre la ku baax la au passage ñu nuyu ko ku baax la ku xam réew mi nag ndax daf fi yàgg te yàgg feek ndombay tànk kon li ma leen di ñaan mooy man ak yéen ñépp nañ delluwaat ci ron way jur yi ku ci am way jur fonkal teralal soo amul loo ko jox wéetal guddi julli ñaari rakk ne yàlla balaa sama bakkan bii di rot maa ngi lay ñaan teraanga ju ma jox sama ndey ak sama baay billaahi di ko am xaw ma foo koy jëlee waaye di ko am ba ca des bul yëkkati mukk sa kàddu ci seen kanam luñ la mën a wax lu métti métti wanaasu ko jigéen ñi yéen loolu laa leen Alaaji Ousmane Guèye moo jur Imam Moussa Guèye benn tey moo daan wax ne ku bëgg doom joo xam ne bu ne ci penc asalaamualeykum ñépp déglu ko mu ne ndeye koy liggéey ci naka mu ne dangay ngay am borom kër mu tàng lool amaan na sax ku baax la mu ne waaye muy ku tàng génn na uti amul mu ne mer mi yow la koy sippi de mu ne waaye na fekk jigéen juñ yar ci kër ga mu ne day ñëw rek àngale la te defoo dara mu ne doomu sang nga mën nga koo tontu te doo ci am bàkkaar mu ne waaye nga wanaasu ko xam ne li tas taskunu ilayha la yàlla wax góor ñi buñ jaxasoo ca biti yàlla nee na ngeen dalal leen yéen jigéen ñi yéen a ëpp pouvoir ñëpp xamu leen ki jaxasoo ca àll ba yàlla sant la yow jigéen ne la dalal ko hmm. man waxuma de sànniwuma leen fleur yàlla wax ne li tas ku taskunu ilayha dama defar góor ñi pour ñuy dalee ci jigéen ñi damay wax ne ne ki la ki la war a dalal bu la gënee rambax foo jëm kër gaay tas ji moo dal saydatuna Xadija bi mu jógee ci xuntuma ñëw fekk saydatuna moo dal yonent bi bi mu jógee ci xuntuma ñëw fekk saydatuna Aïcha ci Xadija ci néeg bi mu naan ko zammiluni zammiluni sang ma sang ma am na lu ma gis am na lu ma gis mais bu saydatuna Xadija doon dof wala mu rambax fa la yonent bi di tëppati waaye daf ko sàng tëral ko ci lal bi sangu ko di ko tàpp tàppal ne ko xaw ma lu xew doomu Abdoulaye jeeg Aminata waaye yow doo gis lu lay jommal mukk ndax mosoo tas yaakaar mosoo fecci kóllëre ku mosul tas yaakaar mosul fecci kóllëre du jommi xawma lan la waaye jommi woo bi naan ko mu ngi nii de mu ngi nii de xoolal ci pexem jigéen mu ne ko bàyyil su dee naamusu Muusa la dinaa ci xam dara bu dee seytaane la dinaa ci xam dara foqi musóor gi ne yonant bi yaa ngi koy gis mu ne ko déedéet gisuma ko mu tegaat kol gi ci bopp bi mu ne ko ñëw na ñëw na mu ngi nii mu ne ko kon naamusu Muusa la tëj néeg bi wëlbate ko ca waraxaat ne ko sama borom kër de am na lu muy gis xoolal ma ndax borom xam-xam la woon bu am xam-xam mu ngi mel ni ku tiit rek ñëw ci sëñ Souleymane wala El Hadj Masil Lakan wala sëñ Ousmane Lo ne ko ah defal ma listixaar war xa xool ne ko su ma fekkee woon ba ko yàlla di yónni maa koy njëkk a gëm kii mooy yónnante mujjub jamono su ma fekkee woon wooteem maa koy njëkk a gëm mu ne ko kii mooy yónnante mujjub jamono boo demee ne ko na xelam dal naa muusu Moussa moo ko ñëwal la daan ñëwal Moussa moo ko ñëwal. sayyidatuna Khadija moo tax moo njëkk a gëm yonent bi ñëw rek ne ko gëm ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullah yàlla la yónni bés ni tey loolu jigéen bu ko dalal moo tax li taskunu ilayha alaaji Usmaan Géy nag ne sa jëkkër bu la angale yuuxu la ci sa kanami nawle nga mën a fayu mu ne góor góorlul ba doon jigéen juñ yar wanaasu ko mu ne soo ko wanaasoo xam nga fu la ko yàlla di fayee mu ne day bàyyi ba nga ëmb moo tax ñu naan jigéen ji dafa wan na lor du loolu lañuy ñuy wax wolof dafa wan na lor mu ne lor ya ko jëkkëram daan lor moom la wan na xakim la woon Alaaji Usmaan Géey mu ne su ci lay nekk ba imbi ko jël weenam jox ko mu ne mu namp baat ba baat bu tàng ba yaay yàlla wann loo ko ndey ja mu wann ko mu ne jox weenam doomam doom ja namp baat bu tàng ma mu ne yàlla ne ko dinaa ko ci ba ëllëg ngay borom baat boo xam ne boo toogee ci pénc ma wax kenn di ko dajjati ndax sa ndeye ko wan noonu démb xaw ma dégg ngeen wax bi wala démb mu ne ko boo waxee ci pénc mi kenn du ko dajjati ndax sa ndeye wan noonu baat ba démb baat boobu nga toog ci pénc mi di borom baat moo tax ñu naan diw borom baat la baat ba ndeyam a ko won noonu mu ne waaye buñ la ne benn nga ne fukk ndam newu ca eh rek ndam newul foofu maa la ko eh defal ndànk rek leel man nga fi fekk du ma sa jaam du sa jee doo jaamam waaye won ko ne ko maa la gën a yiw ndax njaboot gi won ko ne ko sang laa ndax njaboot gi bu rakkaajoo nga dal bu dofee nga nekk nit ndax ki fi nekk ñi ngeen war ko tiitaroo yaa ci am xas leen ba ñaab ne ni ni seen xel yi ni seen ween yi sëggee la seen xel yi sëggee xam nga wala fa koy wax nee na wax ba yeggal benn ustaasatu bu jigéen bu bu rakkaaju jóg rek ci mbooloom ne ko ustaas yaa ñu amee fàtte nga ñu yéen li ngeen sëggale moo gën moo gën a sëgg suñu ween yi fuuf te waxu leen ko du noon la la tontuwu ko oustaz ne pat mooy dëgg di moo tax wolof ne xamal looy wax waaye bul xam lu lay tontu ma jeexalee ko ci biir ngeen baal ma di ngeen reebe dee de li seen Cheikh di wax di ngeen reebe dee de ci yéen a ko moom yéen ndaw ñi ak yéen ndaw yu jigéen yi xam ngeen taq yu kan mooy imaamu kaneen ca Kawlax tey doomu alaaji Cheikh kan la bu maam Abdul Hamid kan ca kaw Kawlax maam Abdul Hamid kan bu Cheikhul Hadji Malick taq yu kan sama wëllëre la mu ngi ko waxee woon ci conférence bu ma doon def fii ci Parcelles Assainies ak ca Kawlax conférence bu ma fay def fekk may wax ci yu demee nii rek xale yi moom nguñ moom seen bopp ba respecte tuñ seen way jur yi di leen déglu mu ne dafa am ñaari yëf yu ko gën a frappé mu ne benn bi dafa woote ci benn kër pour langage yi dañ ko war a defar moo tax Serigne Cheikh dégg mu ne man sama langage sama papa ab doo ma ko defaral langage dañ koy defar mu ne dafa woote ci benn kër moom taq yu di laajte benn soxna su mu waroon defal conférence ne na am ko découragé ne ko tës mu ne alors comment tës la wax di waxu mu ne ko asalaamaaleykum mu ne eh tës waaye nee na ma xam ne ko ñàkk teggin laa fekk ma ne ko ana diw ma ne dafa mel ni dafa góor ah. bi mu ne ko dafa mel ni dafa góor ah. mu ne ko ñëwee nga ne ko. imaam taqiyu kan mu ne ko cey waay ah moo fi woote woon ni mu ko waxee yëpp sax mënuma ko ah waaw mu ne ko mu laajte waat keneen ne ko ana diw mu ne ko kooku kilbite na kër gi ah mooy génn na kër kilbite na kër ah nee ma ne ko waaw bu ñëwee ngeen na ko am imam taqiyu kan nee na mu ne cës ah na ma wax li may wax ba pare lu mu ko waxati mu ne ko naka nga waxu ko pare nga de da ko ne waay waay expression bi la fàtte nee na daal mu wax ko wax bu bizarre nee na ba muy teg teg téléphone bi ne ko tës tëf mu ne ko yow tëf su boxum yow Chérif Mamine Aïdara moo koy faral di wax mu ne ñaaw jikko ak yarade ko làmmiñ weesuwul benn phrase ñetti làng yu bokkul déglu leen yéen jeunesse bi booy deme nañ tasee gàlle insha allah booy deme nañ tasee gàlle insha allah juróomi langue yu bokkul ci benn phrase ndax yarade ko rek booy anglais la demee français la nañ tase wolof la gàlle pulaar la incha allah arabe la lu gën a yomb saa waay nañ daje kër ga suba du lii moo gën a yomb mais complexe benn xale ma ciy waxtaan moom it masil la mu ma man dey père Touba tuubee wax père te li ma lay wax nii ci 90 yi la jamono 90 mu ne ma xam nga lu ma dal mu ne ma dama dem aynu rahmati boobu melut nii dañ daan rang mu tànq ci pot sottil la mu ne ma dem ba jub góor gi tànq ci bopp rek ne ko peer defal ma fi rek mu teg pot ya duute ma ne ma dinga ma waxee loo ma yabee ba ñëw ci dëkkub sëñ Touba bi bàyyi peer ca Ndakaaru ca eglise ba sama kanam ngii di nga ma wax fuñ ci rëdd peer nee naan jàppal leen ma ko nee na may zigzag ci biir nit ñi xam ne buñ ma jàppee ma yegg laaxira nee na ba ma fa jógee laa bàyyi waxin yooyu waaw ah, boo naan père neel sama pàppa ji rek wala bàyyi moo gën a yomb bay père yooyu mooy waxu yan langage dañ koy defar waaw ah, langage dañ koy defar booy wax ak sa yaay am na ci génn góor nee na ma doom man de sama doom ñëw na taxaw wax man de pare dama ne ko loo wax per dañ bëggoon quoi dañ bëggoon chaine bëggoon nga jox ñu ond quoi dañ bëgg dem jëndi chaine ma ne ko loo wax waxu dara ji père dañ bëggoon chaine quoi bu fekkee am nga foofu ond dañ bëggoon chaine waaw ah, wala taw quoi yooyu ay wax la ko may ma téeméer rek du moo gën may ma ñaar foofu on may ñaar foofu yooyu du waxin du waxin nit day yar langage yàlla dafa bëgg ku yar kàddoom surtout nag ngay wax ak say waajur nooyal ko woyofal bul yëkkati sa kàddu ci seen kanam yooyu yëpp daf lay jëriñ ëllëg bu leen yuuxu buleen leen gëdd bul yëkkati seen sidditu baat jamais bu ko def boo koy def rek nga am merum yàlla yan ci yàlla musal taqiyukan nag mu ne ja doon ut jabar baay bi ne ko xaar ma mu yàkkamti rek nee na jógee Saalum ñëw ndar benn gàmmu comme nii nee na mu ñëw ci gàmmu gi rek seen benn jigéen ak makiyaas bi xam nga surtout make-up yii xew make-up yii xew billaay bu ngeen ci gisee jigéen ba takk ko bu ñibbee ba mu li nga xam ne sa yoon newu ci <laughs> barki yàlla di foog ne lii dañ ko soppi waaye du ki ma gisoon meko bii <laughs> yow xam nga taqi kan ne na waa ji ñëw ndar rek gàmmu gi xumb mu gis nag waa ji ndaw su sañse bu wéy yi tax xam naa se rek mu jóg saraxe xam nga dañ ko def wecceeku rek saraxe nee na mu mu mu kobos nijaay ji ne ko nijaay kii baax na ci man kii na ci man nijaay ji ne ko teeyal fii ndara ñëpp a ñëpp rafet de ko nijaay kii baax na nee na fi ñuy waxee rek mu jóg wiire ji fexe ba woo ndaw si mu ñëw mu ne ko ndax am nga ko lay ci mu ne ko déedéet mu ne ko man soxna laay wër mu ne ko may borom kër laay wër mu ne ko kon bu subaa dak boo d'accordee ma wax góor gi sama nijaay mu ñaan si la mu ne ko man kay jëkkër rek lay xaar nee na bër set rek mu lëjël nijaay kama gisoon ca ndar kama gisoon ca gàmmu ga laa bëgg nijaay ji ne ne ko teel na di yow xamoo ko tee ngaa ne naa la dëglu ma mu ne ko nijaay kooku laa bëgg nee na mu dem ñaanali ko ñu may ko ne na guddi jot mu dem di fanaan mu ne mu yegg moom waa ji de nee na mu yegg ndaw si defaral ko reer bu fat cere baase nee na bi muy reer comme Saalum la dëkk moom xamul raisin ak yooyu te ndar dañoo bomb seen cere xam nga ndar ndama man xam naa ndar yàgg naa fa waaw ah, ndekete daf ko bomb ak doomu raisin yi nee na muy napp raisin yi ci bëj ci gémmiñ gi ba ba tacc ko rek bës ko mu ne tacc mu ne wuy sama ndey lii lan la mu ne ko ii nijaay kii raisin la rek du dara mu ne ko ah ndar nii la mel mu ne ko ah mu ne ko dootuma ñibbi nee na ñu reer mu defaral ko cere ak meew defaral ko meewu kese defaral ko jinjar defaral ko yépp nee na ba tëdd jot mu ne ko nijaay nañ tëddi bu ah fekk yàkkamti na nee ñu yegg ndaw si summi talon yi nekkati ab tungu ne la ngeen baal ma de déedéet rey ngeen baal ma de mën ta ñàkk mu ne ma gis ko muy toll nii ci néeg bi mu ne ah nijaay wax na dëgg lii moom bokk ci woon ñene ma ne ah waaye eh, ngantaan man nañ koo muñ du dara nee mu ne ma nijaay maa ngi ñëw de nee na maa ngi ci lal ba jaaxal nag jàpp sama jàpp nee na mu jékki-jékki rek dindi périg bi teg nee na ma gis bopp bi set wécc ma ne subhanallah lii la inna lillahi wa inna ilayhi lii lan la nee na mu ne ko nijaay maa ngi ñëw de nee na indi benn kopp teg ci bopp lal bi mu foog ni sax xëy na njar laak yooyu ndekete bañ ñe la dindi rek def ci kopp nee na ma gis gémmiñ gi ne muguñ ma ne li subhanallah man de tey la ma yàlla doon nëgge nee ma ne ah waaye naa muñ rek guddi gi moom yàggul nee ma mu ne ma nijaay maa ngi ñëw de nee dugg ci toilette bi génn ñëw su soutien bi muy génne morso yi ndekete duy ay wet nda ko mottali woon ak morso nee na ma ne subhanallah tey musiba am ne nee na ma jékki-jékki mu ne ma ni yaay maa ngiy ñëw de nee taxaw di dindi sër yi par benn ndeke dafa këfalu woon nee ma jékki-jékki rek gis ko ci néeg bi muy yem ñu ruuxu rek ma seet fenêtre bi rek jaar ah ñàkk kilifa ah, ah, loolu yëpp lim ciy jàngale ma ñàkk kilifa nit day am kilifa waaw ah, sëriñ Aziz Alamine daf ma daan wax ne ku amul kilifa jinne di sa kilifa ne nag ku jinne nekk sa kilifa bu yàggee ñu tàncul la ci mbedd bi ngay fecc waaye waaye nañu am kilifa te ñu am nañ kilifa yu baax kenn du jur doom bañ ko orientation rek moo fi ne te ku xam li la sa ndey di wax ak sa baay nga yaakaar ne dañ la bañ boo màggee nga koy xam dinga nga yëg ne dañ la bëggoon bu ci kenn yaakaar ne sa ndey ak sa baay dañ la bañ non luñ la sant yëgal na ñoo la gën a bëgg sa jëmm ji ndax ndey ak baay rek ñooy ñaan yàlla yal naa dem sama doom des fi ndey ak rek ñooy ñaan sama doom yal na ma ëpp barke sama doom yal na ma ëpp alal sama doom yal na ma ëpp xam-xam ndax fierteem la loolu waajur rek ko koy ñaan ci doom keneen du ko ñaan kon nag ki mel noonu ci yow loo defate lu dul ormal ko ak fonk ko ak màggal ko ak yëkkati ko ak ut yàlla ci moom juum nga ku juum nag juum du wees de waaye tuub du wees ku ci juum wàññeekul te xam ne ndey ak bàyyi duñu moroom sang lañ lu métti métti lu tarbiyu leen soo leen ko defalee yàlla téyel la sag ndaw boo màggetee mu fay la ko lii rek mooy àddina moom laa jiitaloon wa qadaa rabbuka an laa taabudu illa iyaahu xaj ma si laa ko waxoon wa bil walidayni ixsaanan imma yabluganna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma waay waay falaa taqul lahuma uffin ay waay wala tanharhuma waay waay waxfid lahuma janaaxa dulli min arrahma wa qul rabbi rahamhuma kama rabbayaani saxiira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngeen baal ñu àq nag ñu ñaan Ousmane El joxe kàddu yi ñu ñaan bu déwee nag sëñ ci kàttanu yàlla yàlla nañu yàlla may ñu fekkee déwee yàlla ñu ngi lay ñaan ci sa mbaax ak sa yërmande bu ñaan jotee na imaam ñaan nag fii ba déwén yow yàlla ñu ngi lay ñaan donte xaaji Moustapha ngi fi waaye nañ nañ may imaam yàlla ñu ngi lay ñaan ñun defaluñ la dara lu war a tax nga nangu suñuy ñaan waaye ñu ngi lay ñaan ci sa mbaax rek ak sa yërmande di ko jaaree ci ki nga xam ne ku jaar ci moom rus nga koo delloo ragaloo ko delloo de waaye da ko rus a delloo te kooku mooy seydil wujoodi mooy ka maam borom tuubaa tagg mooy ka seydul xaaji Malick tagg ñi baax senegal ñëpp tagg ko ñu ngi jaar ci kooku di rasulullah di la ñaan yow yàlla fii ñu toog yàlla nañ fi toogaat déwén te yàlla bu ko kenn wute yàlla bum ci feebar yàlla bum ci dee ku fi ñëw te wér bu déwénee yàlla na nga gën a wér ku fi ñëwanti wéradi balaa déwén yàlla na nga wér ping ak lu mën a doon ak lu feebar ba mën a doon yàlla mën na ko faj yàlla ko faj ñi toll ci jàng yàlla na ñu am barki xam-xam ñiy def bac ñiy def BFEM ñiy def certificat yàlla na ñu ko am dofis ñi toll ci ut liggéey di déposer yàlla nañ am fuñ tuur seen ñaq ñu bëgg a tukki yal na leen yàlla may yoonu tukki boo xam ne passeport lay doon ak visa ñu defal leen ko ci ñu dem buñ demee am këyit di baagante di dem di ñëw yal na ko yàlla def ñii am kër te toll ci utum dépense yal na yàlla yombal dépense ci seen loxo yàlla daal ñu ngi lay ñaan ñun ñëpp yal nañ fi daje déwén ñu ngi sant bu baax ñii nga xam ne ñoo yore caméra yi Omar Diop moo yore si Chérif Dabakh TV Thierno noo tudd Souleymane jamanka ñu ngi lay sant di la gërëm ndax yii fa mën a yegg moo ëpp tant bi àddina bi yëpp dañ ci jot fii ak ay fraction de seconde yu tuuti ñëpp jëriñu ci kon yéen ñi koy def jërë ngeen jëf ñun ñëpp waaw mu ne imaam jamanka boobu mu ne imaam jamanka bii moom mooy imaam jàkk ji gis nga mu ne mooy imam jàkka ji. xoolal ni mu woyofee. xoolal ni mu woyofee di filmer. moo ñëw di ñu filmer moo ñëw di filmer. moom imam jàkka moom mooy te mooy imam jàkka ji. yal na ko yàlla taxaw. kon oustaz Ousmane. kaddu yi daal sëñ Babacar ñu ngi jéggalu. bëggoon nañ mu gën fee baax gën fee rafet gën fee neex waaye lii la yàlla dogal tey rek bu ne nag ngeen may ma ni niñ ko waxee ci kàttanu yàlla ba yegsee rek dañ naan sëriñ Babacar si mooy diw ba foo ko yàlla yem loo rek. ñu ñaan bu boobaa way euh, axiru euh, way li yàlla wax nag ñu wax ko in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aleyka salaam wa rahmatullah ci li xew ci jamono ci lay wax yal yàlla fay ko yal yàlla taxawu ko xam naa dañuy jox imaam mu ñaan euh, li nga wax lu am solo la yàlla nañ ko dégg rek li nga wax yàlla nañ ko dégg ndaw ñi yàlla nañu dégg li sëriñ fi wax góor gii daana wax ni sëriñ Babacar Sy bii daana wax ni koo xam ni boo ko joxee buur mu ni bëgguma ndax matul dak nga jox ko président mu ni bëgguma ndax matul soldaar nga jox ko sëriñ mu ni bëgguma ndax matul taalibe ki ko téye ba mat ñett yooyu kooko war nga ko ba xel xale bu ndaw bii koo ko jox sëriñ ba ta buur mbaa président lu mu koy doyee daf la koy delloo mais ki ko nangoo téye nag ba mu dem ba am doole ba ñoo ñu mën koo mën a utiliser kooku war nga ko ba xel muy waajur yal na yàlla fay leen yal na yàlla tax ñu gën a góor góorgóorlu ci waajur yi bari na ko yóotu la mu yóotu jotu ko yaayam ak baayam a téye ca bëgg na koo bëgg a yéeg mënut a yéeg billaay dem ndax yaayam ak baayam a ci suuf tànkam waaye ku sa yaay ak sa baay gërëm bu àdduna bi yëpp maa koo woon di la fexeel du tere da nga dem xaji Souleymane booy ñaan looti nit ku ñëw ci yow gëstul yaayam ak baayam ci moom ba pare boo ko defee rek danga nga gaaw a am résultat ci la ngay ñaan ah kon yàlla na yàlla fay ñëpp kontaan nañu Babacar lii rek li ci bëggoon Babacar naka mu kontaan nga wala bëgg nga waaw kay moom mi ngi jooy rek ñaar daal boo ko waxee Babacar jooy moom boo gërëmee mu jooy boo tuddee yaayam mu jooy su tuddee sëñ Babacar si mu jooyee yal na ko yàlla fay kon su ko defee imam Ibrahima Sakho moom lañuy jox mu def ñaan. rahmatullahi ñuy ñaan rek ci ndigalu Sarif jëmm ji toog di imaam Jamanka dafa am lu mu yóbbante kàddu yóbbu yóbbante di sàkku ñaan ci Sarif nee na nga ñaanal ko. portable la doon fi lay filma tey waaye dafa bëgg balaa déwén mu am caméra nee nga ñaar ko loolu man sëriñ kon jamanka jotul naa si bënte wa ma ala rasuli ilal balaax gannaaw loolu nag eh, lu mu gàtt gàtt rek ñu jotul leen nuyoo dëkk bi yépp délégué délégué mu ngi noonu ci suñu gannaaw yaakaar naa ku téye délégué ba heure bi jëmm ji tax mu toog ba heure bi am am na nu mu mel ci da ci quartier bi te ñi jiitu yëpp wax nañ ko jarul guddal Babacar daal Babacar ñépp la comme li Souleymane ki wax rek nee na ndawalu guddi la ku làmb daje da yaakaar ne yow rekk la Babacar jumaa yi xàmmee nañ ko jàkka yi xàmmee nañ ko waaye néew ju doon yëpp xàmmee nañ ko dama wax na ci jotaay bi li yonent wax ne ne àddina amul kenn kuñ fi war a ñeew lu dul ñaar mooy borom alal ji nga xam ne yàlla jox na ko alal mu di ci def lu neex yàlla ko gën a Babacar ci la bokk ñaareel bi ma ñaareel ko sërif muy boroom xam-xam boo xam ne xam-xam bi ko yàlla jox daf dafa jël tànkam teg ko ci siraatal mustaqima di ci gindi jullit ñi lim fi wax nii tey tabaarakallaahu sunu xaalixiin ku fi jógee bu fekkee yàlla na na mën a ci yow njub war nga ci mën a jubee euh, sërif ak malta wa hashanta kon nag li ñuy ñaan yàlla ma ñu dégg ak topp kon Babacar ñu ngi leen ndokkeel ci ñaan gii ngay ñaanal sa wayjur di ñaan lépp lu ñu fi ñaan yal na ko yàlla nangu bu ko nangoo yal na ko ful ba jullit yi yëpp ñi faatu ak ñu dund ñëpp defaru ci loolu daal mooy kàddu nuyoo dëkk bi yëpp nag nga xam ne euh, jamono moo xat waaye konoon ñëpp ay ñëw waaye bu imaam te délégué teew te imaam suñu deuxième imaam mi ngi nii de oustaz Alioune Sagnane ñu ngi ànd ak suñu beneen imaam euh, Ibrahima Ndiaye bu fa jëgën naaw yaakaar naa ñooñu bu ñu teew dëkk bi teew nañ Babacar ñu ngi lay ndokkel di di la di bokk ñaan gi di yow ñaan gi di ñaanal way jur wii nga xam ne moom war a ñaanal lépp lu ñu fi ñaan yal na ko yàlla barkeel ba njaboot gi yëpp gis seen bopp. mu ñu kon sërif ci sa ndiwal rek la ñuy ñaanee.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 والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أق قدره ومقداره العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك wa waxattanaa bi ijaabatika waxat daawnaka kama amartana fa ajibna ya rabbana kama waxattanaa innaka la tuxlifu lmiad bi hurmati allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatih lima ajaba walxaatimi lima sabaxa naasir alxaq bilxaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أحينا حياة طيبة لا نرى فيها مكروها ونجنا من شر جميع خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أحينا حياة طيبة لا نرى فيها مكروها ونجنا من شر جميع خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا حياة طيبة لا نرى فيها مكروها ونجنا من شر جميع خلقك